salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi yéen ñi nga xamante ne yéen a su nekk di seetaan seen chaîne leader yo plus te nag ñu ñëw ak yéen fii si Tëngéej di leen wan li nga xamante ne moo fi nekk comme ay travaux yoo xamante ne mën naa ne état bi bi mu ko tàmbalee léegi nii mat na at booba léegi du leen lu yegg te mën naa ne nawet baa ngi nii si yoon bi di ñëw te ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi booba léegi ñoom ñu ngi ñaxtu ne état bi dañoo war a yeggal li nga xamante ne mooy travaux yi am fii si Tëngéej du lenn loo xamante ne yegg na ci depuis boobu ba léegi nii lu mel ni tamit lumière mën naa ne boobu ba léegi nii amul benn lumière boo xamante ne samp nañ ko fii si Tëngéej boo xamante ne dina leeral tali bi léegi nañ nag askan bi ku si nekk ñu ngi naan bu oto rombul doo gis lumière moo tax instant bi nii waa Tëngéej ñëpp ñu ngi fi pour di kaas li nga xamante ne moo xew fii si seen dëkk pour que état bi gestu leen pour que état bi yeggal lii di travaux yi am fii si Tëngéej ñu nar a dem nag si askan wi laaj leen seen xalaat ak seen gis-gis si loolu xamante ne nii moo xew fii si Tëngéej. yéen ñi moom lii di ko laajte yal na yàlla guddal seenu fan te yàlla bàyyi leen ci sunu kanam ndax doom wax dafa jooy nit ka ñëw ne ko wax lu muy jooy mu ne li ma bëgg a wax te mënuma ma koo wax li ma bëgg a wax nag te mënu ma koo wax gis naa fu ma ko waxee dama koy wax. ñun ñetti at a ngi nii amuñu jàmm amuñu salaam demoon nañu bay baare tali ñu yebal fi ay oto gendarme yu bari fii ci sunu tali bi ca ndox mu bari ma ñun ne leen nun xeexunu xuloowunu nun dañuy waxtaan ak yéen ngeen dimbali nu te yàlla tax ndax ne ngeen corona dafa am waaye corona de xam nga ne doom bu ñëwee fii day de nun waa Colobane bu bu corona ñëwee fii day de ndax ndoxum kondir meek ndoxum foos meek ndoxum nawet beek lépp a ngi réegu fii teer bii nga xam ne dañ kee waroon bañ juddoo danoo fekk sunu canal bii ñu teg ko fi ñu doon ay tuut tànk di fi tuuram ndox ndox mënatu dem ndox mënatu dëkk ndox mu tourné fii lay ñëw wóor na yàlla ak yonent bi ndox mu tourné rek fii lay ñëw ci sunu kër yi ci sunu biir néeg yi xaas dem nañu luye sunu kër ñaari dëkkatu fi ñi amul xaas a ngi toog di xaar yàlla waaye xam nga ne lii metti na du set la laaj de nañu ñëw fii bu ñu ñëwee fii de dootu ñu dégg fenn corona korona day dee day jóge ci àddina si corona dootu am fii sonn nañu torop ku ñu dimbali nu jël te Macky Sall xaw ma fu mu nekk dinu xool waaye Macky Sall war na noo gestu nun waa Colobane jàkkaarloog tali bi sonn nañu te xam nga ne lii bu ndox mi ñëwee ci suñu biir néeg yi la jëm kon ñun lu ñu doweeti corona nun du ñu daw ndax ci corona la ñuy dund bu ñu bëggee corona jóge fi rek na na na na ñëw Colobane na ñëw Colobane kon nag doom jërë ngeen jëf yéen ñi ñëw di di gëstu di laaj ñu di nu wax naqar ak ñu di jooy seen xalaat yal na leen fi yàlla bàyyi ndax bu ñëpp meloon ni yéen kon lii dina fi dañ jërë ngeen jëf. salaamaaleykum papa na nga def. maa ngi fi rek. dañoo bëggoon nga wax ñu naka nga gisee liggéey bi nga xamante ne mën naa ne état bi tàmbali na ko boobu léegi nii ëpp na at te dara yembagu ci ak ñàkk lumière bi am biir tëngéej gi yëpp ana naka nga gisee lool waaw foofu ni ma ko gisee mooy liggéey bi dafa yàgg liggéey bi daf ñu gën a handicapé ñun ouvrier yi nekk fii oto duggatul fi ñuy liggéey oto génnatul oto mënatul dugg te am na insécurité boo xam ne tamit mu ngi ci actuellement ci Colobane gi ak niveau Tëngéej bi yëpp roboru national bi yëpp am na insécurité bu fi nekk ndax gars yi canalisation yi ñu liggéey yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dañ koo liggéey ba pare bàyyi weñ yi mu taxaw te wóorul ak xale yi xale yi à chaque fois dañ si daanu weñ yi bu ñu amul chance loolu weñ dugg seen biir yi wala mu jam leen canal bi ñu def c'est pas fermé weñ yëpp a ngi taxaw wóorul nag te liggéey bi yàgg na gars yi dañuy cuut coppet cuut coppet la ñuy def cuut coppet xaw ma nag lu waral loolu mais liggéey bi yeex na trop trop te à chaque fois bala ñu ko mën a commencé di gën a tàmbaliwaat nawet bi di dugg actuellement nag Colobane fi mu nekk nii bu tawee inondation bi amoon ñetti at ñeenti at yi génn yëpp inondation lu raw loolu moo fi amaat je vous remercie. jërëjëf Pape voilà. salaamaaleykum yaa booy na nga def. maa ngi fi. nag nga gisee li nga xamante ne moo xew fii seen koñ bi depuis boobu ba léegi ni mën naa ne ëpp na at liggéey bi du leen lu ci yemba ak ñàkk lumière bi am si route nationale bi nii ana lak ngeen di wax ci loolu. Ah, sonn rek wax dëgg yàlla liggéey bi moom metti na torop torop bu nawet ñëwee suñu fit yi day nekk suñu diggu bopp suñu biir néeg yi la ndox mi jëm wax dëgg yàlla man mi nga xam ni dama naan génn sax di jaayi sama jaay di liggéeyi sama liggéey fi mu nekk double handicap laa am mënatumaa génn amatuma fu ma jaar maa ngi suñu buntu kër toog te aw ma ay tànk yu ma jógee jël sama jaay ambulance ji ko léegi maa ngi suñu buntu kër toog ndox mi bu ko fi nawet bi fekkee suñu biiri néeg la jëm ëpp na at moo ngi fii kenn jéemu si dara tëjaluñ ñu ay canal utaluñ ñu ay ay ay làmp li ko dagge juuti ba ba bar ñi amul làmp ak fii réew mi toll agresseurs yi nekk fi lu ne nekk fi suñu doom yi bu huit heures jotee dootuñu leen yónni boutique ba ndax koo yónni mun a la dama fee ragal kolobaan daal moom mën naa ne si gàttal doxul moom kolobaan moom doxul kolobaan doxul ndax wax dëgg yàlla suñu defee lu mel nii ne dañuy defar canal bi toujours ñu seppee fi suñuy doom tout près canal bi ak suñu kër yaa ko gisal sa bopp te xale xamul dara dañuy daw di génn si kër yi dañuy fo toujours xale dugg ci canal bi ñu génne ko toujours xale gi dugg fi non seulement wóorul ba pare yoo yaa ngi ñuy bëgg a rey ndox mi bu tawee suñu biir kër yi la jëm yàlla xam na ni daaw diiran nawet bi kenn amul foo teg sa tànk suñu kawlal yi lañ doon toog di añ suñu biir néeg yi lañ doon toggee loolu tam metti na loolu moom lu ci état bi gaaw defar ko moo ñu gënal parce que sonn nañ sonn nañ ba fu coono yam suñu koñ bi dañ ko tëj ràpp ku feebare si koñ bi dañ lay jàppoo pour génne la si tali bi yóbbu la hôpital oto mënatu fee dugg man maa ngi nii sama chaise roulante bi xaw ma kañ laa gëj a taxaw ci route nationale bi sama activité yëpp baarewu na aw ma fu ma jaar yor sama njaboot dara gënul metti loolu te lépp lii rek moo ko waral ñi ami tànk ñu ngi jéggi di doxi seeni soxla waaye man mi amul i tànk damay toog parce que mënu ma dem loolu moom luñ ñu ci gën a dimmali mu gën a baax man nag ñëpp maa leen gën a sonn man mi amul i tànk moom maa gën a sonn ñëpp ndax man mënatumaa jëndi mënatumaa jaay maa ngi toog di xaar yàlla lii daal sëñ bi na ci pour ñëpp jot dëkk bi yëpp nañ ci jot fii moom bëgg nañ ñu defaral ñu ko lii bu ko fi nawet bi fekkee ñun moom bu ñu yeboo xam ne gasax pare nañ sëñ bi na nga def. maa ngi fii di la ziar. waaw dañoo bëggoon nga wax ñu naka nga gisee travaux yi nga xamante ne mën naa ne booba léegi yàgg na te booba léegi dara réglé gu si dara dara dara dara dara du leen loo xamante ne nii mën naa ne yemb na si liggéey bi nga xamante ne nii am na fii si Tëngéej du wàllu éclairage aussi boo xamante ne nii gis nañ ko fii si Tëngéej ana nag nga gisee loolu. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar di wax ne de liggéey bi de vraiment niñ ko gisee nii ah lii koo xool xam ne bu sottee dina baax. maa ngi gis nag ni quand même yeex na maa ngi gis aussi ne vraiment dina am handicap bu muy causer population bi ñun mais vraiment bu yeggee moom ku xool lii xam ne bu yeggee dina baax kon ñu ngi ñaan ñi ko yore ñu fexe mu yegg surtout que nawet bi mu ngi approché vraiment bu ñu jàppalee dina baax ndax ni mu mel nii yooyu day bari bon bari na infection xale yi ñu ngi ciy fo et tout mais bu ñu jàppalee vraiment mu yegg dina baax dina baax si ñëpp lii moom ko xool xam ni dina sax régler problème embouteillage au niveau de Rufisque moom lii moom bu yeggee dina baax bu yeggee yegg mi nag mooy wax bi te gis nañ ni travaux yu bari commencé nañ ci ginnaawam ba yegg yaa ngi dégg te yii moom moo jëkkee te yeggul moom vraiment moom xamuñu lu ko téye waaye daal gis nañ ni léeg ñu kurti kurti léeg ñu taxaw mais daal bu yeggoon moom vraiment dina arrangé ñëpp moom dina baax. ana lan ana lan ngay wax état bi jamono juñ toll nii si liggéey bi nii. état bi ñu gën ñu jàppale rek lii ñu commencé de dal na xel lool wax dëgg yàlla ñuy séntu. yegg gi moom vraiment li ñuy séntu quoi vraiment parce que liggéey boo teg pose première pierre war ngaa inauguré waaye ñëw leen inauguré fi ay yéen waa état inauguré leen ko bu ngeen ko am ndam fii de ci koñ bi fii parce que c'est un grand problème réglé ngeen ko à moitié mais vraiment bu yeggee moom vraiment euh, kii moom macha allah bu yeggee moom moom ñëppay kontaan bu yeggee ñëppay kontaan c'est à moitié résolu mais yegg bi mooy problème yegg bi mooy problème tey ñàkk a yegg bi aussi moo indi bépp problème bu ñu am ndax yooyu ndax li mu mel nii koo xool xam ni vraiment lii salubrul dul lu salubre dafa am infection nawet baa ngi ñëw nag tiit nañ lool ci nawet bi wax dëgg yàlla soulagé nañu à moitié mais bu ñu sañoon ñu solage ñu soulagé ñu pleinement quoi waaw ñu ngi leen nuyu waa télé bi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di leen jaajëfal ci idée bii ngeen ñuy indil fii nga xam ne fi ñu fi leen dëkk fi leen dëkk fi leen juddoo fi leen màggee fi leen yaroo et puis fi leen i daanee suñuy doole mais travaux yi moom li ñu si mën a wax mooy booba tey nag wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi liggéey mais liggéey bi ñun mënuñu ko comprendre parce que tamit yàgg na yàgg goo xam ne lu mat ay trois ans ngi ne ñetti nawet ba ñun suñu place yi niy liggéeyee bu nawet bi ñëwee du ñu liggéey day inondé day fees tel waaw loolu tamit bëgg nañ ko ñu si dimbali liggéey bi tamit yàgg na quoi wax dëgg neex yàlla gaa yi ñun liggéey bi bu ñu laalee fii bàyyi dem laalaat fële bàyyi comprendre ñu ko quoi ñun ñi nga xam ne fi lañ dëkk actuellement comprendre ñu liggéey bi qu'est-ce qui se passe nan lay doxee ak nan lay demee quoi waaw ku ñu si mën a dimbali ñu jël wax dëgg neex yàlla waaw. ana nag nga gisee ñàkk lumière bi am si dëkk bi tamit parce que boobu ba léegi ne mën naa ne tëngee du leen loo xamante ne lumière am na fi en même temps canal yi ñu ngi ko ubbi ndox maa ngi nii di wal boobu ba léegi nii mën naa ne ñoom tamit waxuñu si leen lu si jëm ana nag nga gisee loolu ak lan ngay wax état bi. waaw loolu tamit l'éclairage bi tamit wax dëgg yàlla loolu tamit li ñu gën a naqari sa la bokk parce que tamit ñun fii dañ fay yor ay tout tànk yoo xam ne guddi gi dañuy génn koñ bi tamit sécurité bi tamit matewu ko ndax lëndëm gi mu lëndëm wax dëgg yàlla ñi ni nga xamee sax dañu am ay njur si biir kër geex yu demee noonu bu guddee du ñu nelaw quartier bi lëndëm na wax dëgg neex yàlla fan yii passé daal wax dëgg neex yàlla li si xaw dimbal sax ñun suñu quartier bi suñu niveau monsieur le bi nga xam ne moo fi nekk dugg na si koñ bi taal ñu ay éclairage waaw ba koñ yi daal xaw naa leer mais depuis boobu ba tey moom lëndëmoon na lëndëm goo xam ne jéggi na doy guddi gi doo génn boo yéenee sa doom sax day ragal a génne wax dëgg yàlla loolu moom tamit ku ñu si dimbali ñu jël éclairage boo xam ne nit ñi dinañ mën a génne dox seen i activité si guddi gi war a mën a génne sax sa buntu kër enjoy li nga mën a enjoy ku ñu dimbali si éclairage bi nga ñu jël quoi mais ñaari éclairage bi yëpp li ko waral mooy chantier bu taxaw liggéey bu taxaw bi mais gën na ne liggéey bu bu gaaw ni mu war a gaawee dem ni mu newee ni mu waroon demee éclairage dina am mais liggéey buy yéex tardé wax dëgg yàlla moo xam naa moo lëndama loolu quoi waaw liggéey bi moom moo yéex quoi wax dëgg yàlla waaw asalaamaaleykum waa Tëngéej asalaamaaleykum waa Colobane je me présente quoi MC Mbagnick la quoi waaw mais grand yow moom sa question bi noonu xam nga dama koy rafetlu quoi parce que boo xoolee loolu noonu man dama koy yàggoon a bëgg sax wax quoi boo xoolee travaux yi nii quoi gis nañ travaux yi mu ngi avancé quoi mu ngi avancé gars yi ñu ngi job si quoi mais insécurité bi tamit dafa dafa dafa des parce que tey say nii ma su ma sañoon dañ koy accéléré d'ailleurs nawet bi mu ngi ñëw quoi te sunu yaay yi fii seen doom yi dañuy génn di fo tout récemment rek am na sama benn frère boo xam ne nii xam nga feer yi ñoo ko jam quoi kon dama gis ne kon travaux yi war nañ ko accélérer parce que boo xoolee tey tey nii boulevard Rufisque nii xam nga rond point juuti ba ba rond point ñu euh, euh, bataa bi noonu waa rond point juuti ba ba rond point bataa bi nii boo xoolee lamp yi dafa am ay lamp yoo xam ne boo leen rombee du ñu tàkk quoi parce que xaw foofu noonu day day indi ay insécurité moo tax tey agression bi dafa bëri tey boo xoolee gis nga town bi temps yi ni mu demee dangay ngay liggéey wàcc sax mënoo mënoo mënoo jéggi fu dul si passerelle bi nekk fii wala nga jaar ci pont bi nekk fee parce que fii lii dañ ko fatt quoi teer bee tax ñu fatt ko kon yoon la tamit ñu taalal ñu làmp yi fii quoi loolu dañ koy soxla liggéey bi tamit buñ ko mënee accélérer carrément ñu def ko parce que nawet bi comme ni ma ko waxee sànq ñëw na ko parce que Rufisque moom xam nga dafa soxla beneen xar kanam boo xam ne nii avancement foog mu am xam nga si town bi nii bu ko defee xam nga askan bi man see jariñu quoi. salaamaaleykum waa Tëngéej maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur sa sant. ndax parce que travaux bi doon na travaux boo xam ne maanaam dafa yàgg jël na ñaari at ak lu teg mais si benn côté bi man mënumaa xam travaux bi la moo tax mu yàgg ndax parce que du sama demeen du sama liggéey kon ñun dëkkandoo lañ dañ dëkk fii travaux bi tamit daf ñuy baare ndax ku ci nekk yaa ngi yor say doom fii yor say rakk am na ñoo xam ne ay xale la am na ñoo xam ne maanaam seen i cër pour ñu jéggi day metti si ñoom yéen ñi nga xam ne yàlla moo leen dimbali ngeen doon njiit fii si dëkk bi te ñi nga xam ne ñoo toog si maire bi tamit xam naa ne yeneen siy dox jéego mais ngeen gën si dox jéego affaire bi gaaw ndax ñaari at ak lu teg loolu du lu ndaw kon buñ toogee travaux bi daw depuis boobu ba léegi am na booy si jot gaañu gaale bii nga gis nii am na ku fi dëkk fi la gaañu si put ak beneen booy bu gaañu si tànk am na ñoo xam ne gaañu leen te yëguma leen yaa ndax feer yi parce que bu xësee ba taw ba ndox mi raase feer bu génnee ni doo ko gis mën ngay jéggi feer yi dagg la yaa ngi dégg ñun amuñu len lu dul tëngéej si yaa ngi dégg da ngay dem Dakar boo fa duggee nga xool gars yi ni ñuy liggéeyee ak liggéeyu tëngeej muy yéex quoi te du yoon ñun dëkkuñu Dakar mais dañ fay dem am lu ñu fay dox mais dañuy gis travaux ñu romb benn travaux foofu mais buñ ñëwaatee retourné demaat fa gisaa travaux boobu pare kon benn sant kon travaux bi diiran bi mu jël nii man moom laay jooy te du yoon xam nga la moo tax du yoon man lijjantiwuma ay comme ay politique la ak affaire yooyu voté naa nag mais man politique ma bi ma xoolee marché bi ñu commencé kaa raxasi yëkkati maire yi ah maa ne ah ki fi toog mu ngi liggéey kon su ma toogaatee yaa ngi dégg gis tamit yaa ngi liggéey bi tamit yéex tamit faaw ñu kaas patron bi seen boss bi gis naa ko wax ak moom mais bi ma expliqué daf na ma wàllu fiil yi nekk si suuf la ndax waa Senelec waa Senelec gi ak waa Sonatel seen fiil yi yaa ngi dégg ak yooyu moo tax liggéey bi yéex mais tamit bi ma gisee ne tiwo yi déplacé nañ ko ak fiil yi gis naa liggéey mu ngi daw mais tamit ñoom ñi gën a góorgóorlu yaa ngi dégg gën a góorgóorlu si liggéey mu gën a gaaw quoi ndax parce que mënoo tamit nekk fii tamit di kaas liggéey dafa metti ñoom fajar lañuy xëy ñu ngi liggéey ndax jamono jee passé toog nañ ay weer xëyuñu xaw ma nag nu mu demee mais bi ma leen gisaatee ñu ngi liggéey fonk nañ liggéey bi liggéey baa ngi daw comme donte nag liggéey baa ngi daw luñ ci gën a farlu mu gën a baax ndax man tiituma sama bopp ndax man mën naa jàll mag laa xam naa ni may jàllee mais ki nga xam ne xale la wala ki nga xam ne ne mag la wala ki nga xam ne ne yaa ay cëram matul kooku laay calculer àdduna boo fi nekkee booy liggéey benn affaire yow mi yàlla def wér nga wala mën nga benn affaire bi bul calculer sa bopp ñi nga xam ne yàlla teg na leen gàntal ñoom ngay njëkk a lijjanti dañuy ñaan yàlla daal lépp rafet Sénégal yaa ngi dégg jàmm fi comme yàlla def na coupe bi ñëw fi ah Sénégal war naa mën a avancer coupe bi ñëw na fi lu fi musula am ñu jaayante ko ba yàlla indi fi coupe bi kon lépp luy jafe-jafe pour man dafa war a mën a teggeeku sama gis-gis waaw télé bi nag man kontaan naa si ñoom xam la moo tax ma kontaan si ñoom am na télé yoo xam ne tant que demoo neexal leen oo leen duñ ñëw mais ñii dama jékki-jékki toog rek ñu ñëw kon ñooñu da nga leen di sant di leen gërëm seen directeur beeg ñu fay liggéey ak yow mii tamit caméraman bi ñëw di wax ñun dañ lay sant di la gërëm ndax parce que bi nga ñëwee mënoon nga ne ah ñun dañ toog nii simple nga xool ñi nga xam ne gars ñoo li nga wax ak ñun mais xeeboo ñu suñu kàddu déglu nga ko te xam nga njariñ a si bu dee benn moo sax génn na njariñ waaw kon nag man loolu laa leen dooli daal di leen ko ñaax ngeen waaw télé bi sa kaw sa kanam waaw ndax parce que geste bi ngeen def rek laa leen ñaanal yàlla mu dem sa kanam yàlla nag mooy fay mais dafa war a dem sa kanam waaw waaw mbokku internet yi nga xamante ne yéen a saa su nekk di seetaan seen chaîne digitale Rio Plus ah seen émission Rio Plus Actu tey mën naa ne lii la leen indiloon muy li nga xamante ne mooy travaux yi am fii si Tëngéej booba léegi nii xaw na yàgg lool ba askan waa Colobane ñoom ñoo ngi kaas ne liggéey bi dafa war a yegg ndaxte li nga xamante ne mooy canal yi booba léegi tëjuñu ko te wàññi wuur ak seen i njaboot ak nawet bii di ñëw nii bëgg nañ état bi taxaw leen defal leen li nga xamante ne ni moom mooy seen travaux yi nga xamante ne tàmbali nañ ko fii depuis boobu ba léegi nii yeggul bëgg a état bi taxaw ci daal si nu mu gën a gaawee yeggale ko balaa nawet bi dugg ngeen àndoon see seen caméraman xalifa kii nekk ci micro bi aussi muy Khalifa mën naa ne tey nag li la leen indiloon seen yeneen émission Rio Plus ak ñu dem yéen ba beneen yoon si yeneen émission yi si yeneen mbir yu gën a doywaar li nga xamante ne mooy information à temps réel ñu leen koy jox fii te ngeen dem nag abonné si suñu page YouTube. page Instagram ngeen dem abonné fa aussi lépp lu ñu dugal ngeen mën ko fa am ba beneen incha allah.